président moo wax 31 décembre bañ koy interroger mu ne am na ay dossiers judiciaires moo ci teg loxo parce que am na ñoo xam ne boo leen jàppee réew mi tàkk waxul loolu lu mu la wax lu mu la wax maa ngi fàttaliku Modou tu moo sors Modou Modou nga génneel ma l'extrait où la président a fait cette déclaration même àggali même àggali xam nga ah. aussi moi je président il parlait d'un contexte très précis c'est avec le cas Sindiély Wade il n'a jamais nommé Sindiély Wade dama ne ba ma bàyyee ma wax xam finalement may mën a quand on on débat y' a un minimum. waaw mais il n'a jamais nommé si njëriñ a de courtoisie que vous nous devez nga may ma ma àggali. bu dee loolu man mën naa la mën nañu àgg émission mënoon naa di la dagg à tout moment parce que wax nga fi lu bari lu nga xam ne dara taxawu ci benn ya wax nga fi léegi waaye eh, ñu ñun gëmuñu am yow mën ngaa wax jeu mais d'autres ont dit autre chose mais Ousmane Sonko a dit publiquement désobéissance civique où je ne répondrai pas euh, aux en face de vous un citoyen sénégalais boo accuser d'autres citoyens il y a d'autres citoyens qui fait pire et nga xam ni ñële c'est simplement leur appréciation du du mais bu leen juge bi oo oh, ñu ñu wuy mais kii dafa ne man dootuma wuy du juge sénégalais. non donc par conséquent mais beneen bi beneen bi ma rappelé le contexte historique ma rappelé ma rappelé contexte historique ma rappelé contexte historique. mooy d'abord un président waxul damay jël dossier parce que dossier judiciaire mooy bu àgg justice président lu mën mooy rapport IGE ou rapport bu mu commandité mu xool rapport bi bu ko jàngatee mu xool ni lii mën naa ko yóbbu ci ministre de la justice ministre de la justice jox ko procureur mu def ko tant que nag mu ngi ci président de la République du dossier judiciaire donc bi affaire bi amee en 2012 mu ñëw pouvoir mu def ay enquête ci Karim Wade def enquête ci euh, euh, li ñu ko euh, le fest comme lu festival mondial des arts bi fi bi fi amoon te si njëli ji jiite woon ko am ay ay inspecteurs yu wax ni am na lu ci am na lu ci jaaru yoon président xool jàngat ko ne boobu ma xam ni su ma yóbbuwaatee kii tamit ci tribunal ñu mel ni damay singali famille Ablaye Wade loolu mooy contexte bi mais li ci am solo mooy et dans tous les cas amul benn dossier judiciaire bu président mën a teg loxo c'est-à-dire président mën na am rapport rapport bi bu ñëwee mën a rapport bi bu mu àgg fii bon loolu aussi c'est dans ses attributions bu la boo yónnee inspection générale d' état ou bien nga yónnee beneen corps nga ne ko commande defal ma enquête ci tel ministère ou bien enquête ci telle agence mu indi rapport bi rapport bi da nga ñoom dañuy def ay recommandations mais président bi il n' est pas tenu par les na li nga wax nii. waaw mais loolu moo am. la expliqué loolu yow yaa ko xam nga contexte bi lan la à l' époque même y' a eu le cas des centres de de redressement de Sëñ Modou Kara. oui justice dugg ci ñu commencé def seen liggéey. ñu jékki-jékki ñu taxaw et le président a dit ça. waaw ma ne mais ma ne xaaral rek xaaral rek xaaral rek le président wax loolu xam nga euh, pour en revenir au dossier euh, Sweet Beauté. dossier non non nañu wax non balaa ñu àgg nañu leeral lii dama ni la. mais dossier judiciaire loolu la wax de manière factuelle léegi nag yow yaa bëgg a indi sa explication donc j'écoute ton explication administration laa non bu demee ci justice lay nekk dossier judiciaire mais président expliqué wul loolu mais ak judiciaire bu nekkee rapport dafa ne rapport ah. dafa ne rapport boo ñëwee président la république mun na xool rapport bi ne rapport bi recommandation yi àndul ak li ma gëm mu mu ko loolu c'est son xam nga bi affaire bi capitaine daf fi waxoon ne ba mu déggee dossier bi dafa ne dossier bi waruñu ko yëkkati pour des raisons de sécurité mais à l'époque je n'avais pas compris euh, lan la bëggoon wax par là xam nga ba dossier bi tàkkee ba dossier bi jógee président de la République mi nga xam ne ministre de de la justice moo moo am na am na droit am na am na euh, autorité ci ci ci parquet bi président mënoon na leen wax xoolal leen ma mbir mi bu nekkee taxawul li nga fàtte au nom de la au, au nom mais, au mais, nom de la de la paix sociale. waaw ah? mais mais may mën a nag yaa ngi yaa ngi daanu. au nom eh, non xaaral xaaral et pour une femme ça me paraît être may ma pare pour une pour une femme d'abord Adji Sarr est une citoyenne sénégalaise. non ne me culpabilise pas. non ne me culpabilise pas non me culpabilise pas laisse terminer ne me culpabilise pas. amul ne me culpabilise pas. non mais c'est grave ce que je dis. non c'est très grave. accuser accuser Ousmane Sonko c'est li mu engendré tey wolof li mu waaw mais bu ma laissee terminer. li mu engendre mbir mi dossier euh, de sexe bi li mu indi ci réew mi yëpp li mu ñu yàqal yëpp. waroon na tax waroon nañu ko prévoir et que bu fekkee ne dossier bi euh, ay caaxaan na ko lal bien que Adji Sarr a droit à une justice. ñu teeloon ko arrêté et ne me dis pas pour une femme. parce que pour une femme pour une j'ai souffert pour Adji pour une femme. j'ai pensé bu fekkee ne lii dëgg la Ousmane Sonko ne mérite pas de demander les rênes de ce de ce mais pour une femme aussi pour une femme Adji Sarr l'affaire Adji Sarr dafa disqualifier notre cause non, mais, mais, des femmes se sont battues pour criminaliser le viol demain une autre femme bu ñu violé réellement xëy na dina ragal a tijji gémmiñam wax ne dañ ko violé parce que bu yëkkatee dinañ ko ne gisoon nañ ci dossier Adji à la fin de la fête les faits les faits ont été disqualifiés mais est-ce que yow moralement ñu ñu fekk xale bu jigéen ci biir salon de massage buy def liggéeyam ñu fay jotante. c'est inacceptable. loolu laa c'est-à-dire que c'est ça. moralement c'est inacceptable. mais loolu ba tey foofu la. ba ah. pare deuxièmement man li ma la wax ne dama ne le président de la république ci procès Adji Sarr ci procédure bu aji saar ak ak Ousmane Sonko président de la république mënu ko arrêté. parce que yoon dafa am yoon. waxuñu président de la république arrêté ko aji aji ministre de la justice mënu ko bu ñu mënoon nañu instruire. loolu bu ñu ko defoon loolu mooy loolu mooy loolu mooy manipuler nag la justice. li ngay wax ni bu ko amoon muy muy manipuler la justice.